alhamdulillahi alhamdulilahi rabil alamina rahim ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm a di leen yëgal loo xamante ne lii liggéey la boo xamante ne ñoo ngi ko war a liggéey si fii ci jumaay Tuubaa ji ñu boole ñoo ko sëriñ Abdou ak sëriñ bi nga xamante ne moo yore liggéey bi nga xamante ne moo féete woog jumaa ji a ah, ñu fas ko yéenee def si incha allahu rabbi a ah, loolu itam dañu ciy woote woote boo xamante ne am na tàmbalikaay ci pentirkat yi waaye amul yemukaay ndax liggéeyal sëriñ Touba rek la te ñun ñëpp dañ daan wax ah dañuy liggéeyal sëriñ Touba dañuy liggéeyal sëriñ Touba am na nag daayira bu ñu lëkkalee bu tudd Rawdu Rayaahiin boo xamante ne ñun ñëpp ko bokk sëriñ Saliou mënu ko tuddee woon ñu tàmbalee ko woon fii ci buntu kër sëriñ Fallou Mbacké mag ña di ko doxal di ko doxal ba mu egsi ci ñun ñu di ko doxal tey jii nag liñ doon doxal ci dëkk bi lépp sëriñ saaliwu daañu ko sant ak yeneen i kilifa agsi nañ ci ki nga xamante ni kii nag mooy boroom te moo ko moom moo tax ñu di ko woote kuñ ci masaan xëyal it cëw turam la ñuy jaaree di la ci xëyal tey nag moo woote ci turu boppam moom la ñuy liggéeyal lii nga xamante ne moo ko moom mooy jumaa jii di jumaay sëriñ Touba ji te mu nekk fi te ñuy xalaat ne nag lépp loo xamante ne ab peinture kët jëf na ko fi mbaa doo ab peinture kët yàlla am nag pay te dana la ko fay ci kàttanug yonente bi ci barkeb Serigne Touba bi ñuy liggéeyal kon nañu jàpp ne liggéey bii dañu koy woote am na tàmbalikaay nag waaye amul yemukaay noonu ma ko waxee liggéey beet ah fas nañ ko yéenee tàmbali fii ba nga xamante ne màggal gaa ngi ñëw amuñu benn bis bis boo xamante ne bii rek war nañ cee mën a xëy ah ñu xëy ci ñëw liggéey ba ba ñuy yegg ca ah, foofa mbaa sunu borom def li liñ fiy liggéey egg liggéey bi nag dafa yaatu moo tax ñu di ko wootee nii ñu koy wootee bàyyiwuñu kenn nag féetale wuñ ko liggéeykat yi nga xamante ni ñoo nekk Touba rek féetale ko ñu nekk Ndar féetale ko ku di peinture kat te ne ci Sénégal te nekk fii te mën a liggéey ngir yàlla ak yonente beeg Serigne Touba ñoo ngi lay woo ci liggéey bii. ak boo ñëwee nang ko bëggee nga waxee ko noona luñ ca man ñu defee ko noona incha allahu rabbi yaakaar nañ ne li ñu ciy séenu lépp lépp lépp mu ngi ci biir loo ci bëggit mën nga ko cee jëlee ah kon kàddu gi ah, dama koy jox ah, Abdou Ciss mii nga xamante ni moo jiitee daayira Rawdu Rayaahin bi bu may wax daayira Rawdu Rayaahin nag génnewuma ci kenn muy kuréel yi nga xamante ni ñi ngi ci biir dëkk bi te nekk ci yeneen kuréel mooy ñi nga xam ne ñooy coloriste yi ñëpp rek kuy liggéey ku ne rek euh, peinture ak foo ko mën a liggéeyee ñoo ngi lay woo fii bàyyiwuñu kenn kuréel yaa ngi fi bari nañ yàlla nañu ci yàlla defal daal li ñu ciy sakku te di ko ci sabablu ndax itam nag lii waa SANAC ñoom ñoo indi li nga xamante ne lépp luy jëm ci jumaa ji ñoo koy def ñoom it lañ ci yéene te bëgg ko ci yàlla am na ko mën na ko ci barkib Serigne Touba yal neen ko yàlla defal kon liñ ciy yéene daal mooy liggéey ah yàlla rek tax matériel yi nag lépp dana doy SANAC nga koy yore lu ñu ci soxla danañu ko indil dara du manqué nag du xéewal gi nga xamante ne moom ngeen di jëfandikoo ak paas bi leen di delloo yàlla am na ko te yonent bi am na ko sëriñ Touba danañ ko yombalal kon nag abdu nga ñëw continuer waxtaan wi leeral ko dongo yi ba nga xamante ne danañ xam nin ko bëggee ak fii nga xamante ne fii lañ ko bëggee muy barabu sëriñ Touba bii yàlla nañ suñu yéene egg ci kàttanug yonente bi barkib Serigne Touba Xaadimu Rasuul. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare tey jégg lu baax kàddu yi ñu jël di ko jël ci turu suñu jëwriñ suñu baay Mouhamadou Sène nga xam ne mooy njiitul daayira Rawdu Rayaahin ak suñu kilifa suñu jëriñ sëñ Fallou Ndiaye mi ñu àndal mu mel ne soññee bi li ci ëppoon solo baay Mouhamadou def na ko xanaa dañuy leeral rek leeral gi nag weesul ne euh, yéen a ji am ñun ñëpp benn yéen rek la muy liggéeyal Serigne Touba ndax murid ba waxal kaddu gam lay mooy dama am yéen a liggéeyal Serigne Touba bu ñu amee yéen a ak pas-pas bi nag ñun liñ doon xalaat di ko bëgg suñu xol. te suñu kàttan mën ñu koo jëfal ñoom ñu jëfal ñu ko muy matériel bu ñu liggéeyal Serigne Touba léegi nag doolu la ji am doon ko xalaatal liggéeyal Serigne Touba war nañ ko mën a def ci liggéeyub Serigne Touba bi euh, bi ak soññ mi daa mënta ñàkk ndax dani képp ku soxla ni da nga leen woo soññ leen waaye kenn ku nekk sa pas-pas bopp bi nga am Serigne Touba rek war na laa mën a soññ ndax jàpp naa ne euh, njort bi mu am mooy kenn ku nekk ñun euh, sa yéene mooy am wërsëg bu ne yaa gàññ ba mën ciy liggéeyal Serigne Touba am yéene yi liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ñun la ñu waroon def ñoom ñu ñu koy defal kon doole ji soxla ci ñun ak xam-xam bi war nañ ko mën a jël jox ko Serigne Touba te xam ne loolu rek lañ jàpp nañ ne du mënuñu ko fay sax waaye day bokk ci liñ jàpp ne ak fay la ci suñu diggante ak moom donte ñu ko fay. Euh, di leeral ci bis bi mu mel ne le 18 bi ñëw incha allah lañ jàppoon programme pour liggéey euh, jumaa ji ak li ko wër ak Serigne Touba gi ak fii ba Margo ba euh, àndandoo sëñ Fallou Ndiaye bi fekk suñ Baye Mouhamadan génnoon ñu dem sëñ Bass Abdoul Khadir mu boole nag. waaw ah, mu biñ ñëwee. ñoom ñu wax seen yéen ak seen bëgg-bëgg ci jumaa ji mu mel ne ngir yu weex yi ngeen a gis ñoom dañoo amoon yéene ñu yeesalaat ko bala ñoo jub màggal te buñ demee bala 18 ngir ñu commencé ko jëm màggal xaw xat tey jege màggal gi ñoom seen yéene nekkoon commencé ko peinture bi ngeen a gis moo tax waa Sénégal ñëw fi tey andi peinture bi ah, ci kàttanu yàlla ñu fas yéene cee soññee waa raw Rawdu Rayaaxin ngeen seenum liggéey incha allah du xaar la 18 kon samedi bi ñuy ñëw bi ñuy dënmal képp ku ko man ci daayira bi tam jàpp na ci yow incha allah ci lañ fas yéene commencé liggéey boobu jëm la 18 kon képp koo xamante yaa ngi dégg suñu kàddu ak fépp foo mën a nekk ak pas-pas bu am ngir ñëw na nga fanoo xel ne samedi bii di ñëw incha allah la ñuy commencé liggéey bi jëm la 18 loolu lañ ci lañ la waxoon nañ ko ci yokk ngir soññee ji euh, bu ñuy ñëw nag sëriñ be daa wax lu am solo ci liggéey bi te sëñ Abdoulaye da ko ne boo yoree mbir bëgg mu ñoŋ bu ko dénk sa xarit da nga koy dénk xaritam xaritu mbir nag mooy ki ko man te am ci yéene daa wax ne liggéey bi liñ ci soxla mooy kàllafe ak kalife loolu nag kaddu la waxin la déggin la laaj ñëpp lañ soxla waaye képp kuy ñëw da ngay kalifeel sa bopp te fas yéene kalifeel sa bopp ba boo ñëwee liñ soxla ci liggéey bi Sëñ Tuubaa nga mën koo def ndax Sëñ Tuubaa jombante naa ñu koy liggéeyal kenn dafa jaar di am loo ciy xebeb te loolu nag pas-pas bu ànd ak bu ñëwee jàpp naa liñ bëgg dinañ dinañ ko def te buñ amee li bu fekkee def nañ ko ni ko sëriñ bi bëggee ñun liñ bëgg sëriñ bi danañ ko am suñu bëgg-bëgg mi ngi aju ci bëgg-bëggu sëriñ bi bu sëriñ bi amee li mu bëgg rek ñun li ñu bëgg suñu digg nag sëriñ bi danañ ko euh, maa ngi soññee ne liggéey màggal gi ngeen ñëw donte suñu période la ñu ngi ciy am ay liggéey da ci profité ngir gagné ci waaye buñ góorgóorloo ci liggéey sëriñ Tuubaa bi ba sëriñ Tuubaa am ko ni mu ko bëggee lépp lu war suñu digganteeg màggal gi sëriñ Tuubaa dana ko jàppandil te danañ ko def ni ñu ko bëgg incha allah di jégaluwaat di yokkaat tuuti ci kàddu yi mu mel ne euh, tàgge boo gis day am jàppal ma diw te mu mel ne ñun ñi nga xamante ni suñuy waajur lañ ci peinture euh, mu mel ne suñ ci limee suñu baay mu sekk suñu baay Abou Saw ak suñu baay Abdou laxat Kan euh, dana yóbbaale mboolem pindikat yëpp ak suñu baay Mamoun Dieng euh, waa dëkk Pain ñuy woo ko mel ne sëñ Abdou Lahad Seck ak mbooleem mu àndal liggéey bi euh, ak mbooleem mu àndal liggéey bi ñu leen ciy woo di leen soññi bu baax a baax di soññi mboolem kuy pindikat suñu jiitalee mag ñooñu nag baay mu sekk su baay Abou Saw ak suñu baay Abdou Lahad suñu baay Mamoun Dieng dana yóbbaale mboolem kuy pindikat Euh, ñu soññee ci wàllu matériel képp ku ñëwit bul gàdd sa loxol kese ak ak sëñ Moudou Fall Guédé incha allah ñu koy soññi bu baax ci liggéey bi ñuy soññee ne képp ku ñëwit bul yor sa loxoy kese moo xam muy esel sofo lépp loo am na nga jàpp ne fii la yàlla nga jël ko àndaale euh, ndax matériel bi ak euh, xam-xam bi ak doole ñëpp ñun la war ñun liggéey waa Sénac matériel la ñuy jox ngir sàkk ñu ànd ak ñoom liggéey bi képp koo xam matériel ba nga jël di ko liggéey sa sànce na nga ànd ak matériel boobu ñëw ak say gone ña ca kalifa ci liggéey ba nga ànd ak ñoom ñëw ngir ñu defal liggéey bi ba am ko ni ko sëñ bi bëggee loolu lañ ci amoon luñ ci dolliwaat ñu jégalu baat wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér waaw di sant yàlla bu baax a baax a baax ci jotaay bi ak bës bi donc ñun waa Sénac peinture dañu lëkkaloog ak waa raw Rawdu Rayahin muy daayira peintre yi nekk Touba nga xamante ne dañoo ñëw wax seen bëgg-bëgg ak seen projet ñun Sénac peinture ñu fekk leen si may wax ci turu nag direction général bu Sénac peinture ci turu monsieur Laurent Lardès bi nga xamante ne mooy jiit bi di directeur général bi ak turu directeur commerciale bi di Assane Hadra ak direction commerciale bi yëpp ma ànd ak tey bi ñu waxee yéene gi mooy yéene taaral dëkkub Touba mooy jumaa ji ak li ko wër Sénac Peinture ànd ceeg ñoom ndax ñun dañu am direction boo xamante ne dafa am wàll ak gëdd goo xamante ne dañ koo jox fii dëkk bii di Touba ñun ñii dafa liggéey di ay ndaw bokk ci njabootu kër sañ Touba kon nag day nekk loo xamante ne dañ ci sawar ndax day mel ni sunu bopp lañ ko defal kon Sénac Peinture comme ni ko euh, sëñ Mahmadan waxee. bés bi ñu ngi ko jàpp le 18 bii ñu jëm muy le 18 juillet ñoom woo nañ ci seen mbokku peintre yëpp leeral gi ñu ciy doole mooy SENAC pare na pour ànd ak ñoom te gunge leen ci ay peinture yu mucc ayib peinture de qualité yu mucc ayib yoo xamante ne moom la ñuy wax peinture de dernière génération mu ngi mel ni peinture bii ñu indaale tey nga xamante ne moom lañ programmé ci grille yi ñu war a liggéey ñu koy wax seen lak dafa nekk peinture à l'huile yu bees ci yu mujjee génn la bokk. peinture à l'huile la boo xamante ne weexaayam ci niñ ko liggéeyee muy weexaayam ak melaxaayam du soppeeku te du changé te en terme de li ñuy wax pouvoir couvrant mooy peinture bi boo xoolee li nga xamante ne moom la pot bi mën a liggéey ci surface dañ ko gën a liggéey ci peinture bu bees bii ba nga xamante ne benn kilo bu nekk mën na dem ba douze mètres carrés kon peinture la boo xamante ne dañ koo xalaat bu baax a baax ci laboratoire yi liggéey ko fas yéene ci ñëw ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci projet bi ànd ak ñoom ci bës bi ngir taaral bés pour ngir taaral liggéey bi mi ngi mel ni tey amoon nañ yéene ni dañuy euh, li ko dalee ci miiru euh, Kër Sëñ Touba gi ñu yeesalaat ko ba mu gën a euh, ñoŋ tali bi nga xamante ne moo war jumaa ji lépp luy passage piéton ñu defaraat ko parking bi oto yi di gaare lépp luy traçage ñu defaraat ko ba ci morgu Touba gi ak fa ñuy jullee néew yëpp ñu yeesalaat ko ba mu yees ba ñuy jullee it incha allah kon nag loolu mooy yéene gi. Sénac peinture ànd ceek ñoom waa Rawdu Rayaahin incha allahu rabi le 18 ak jàmm ñu ñëw ànd ak ñoom ci bés bi te lépp loo xamante ne mooy matériel bu ñu soxla incha allahu rabi dinañ ko indi ci loo xamante ne laajuñu leen ci dërëm loolu nag dañ koo def ngir ànd ak ñoom ci développement dëkk bii di tuubaa ndax ku ko def ñun mel na ne suñu bopp lan ko defal ndax tey boo demee tey ca Sanak njaboot ga fa nekk ñëpp njabootu sañ Tuubaa la njabootu Sénégal la ñu kon buñ ko defee dafa mel ni suñu bopp lan ko defal kon incha allahu rabi ñi ngi koy woo ñi ngi ci woo mbokk taalib yëpp di ci woo mbokk peintre yi képp koo xamante ne mën na ko te jot bi mate ko incha allahu rabi nañ xam ne Sanak peinture dina fi nekk ànd ak waa Rawdu Yaaxin ànd ak waa euh, peintre yi nekk tubaa yëpp incha allahu rabi ci liggéey bi jërëjëf. aleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu daairatu muxaddamatul xidma di nuyu sunu gan yu tedd yi bàyyi ko Sénac ak ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci daairatu rawdu rayaahin bi nga xam ne moo lëkkale mboolem pencirkat yëpp ñu ànd dalal leen fi ak sunu mbokk sëriñ Cheikh Ibrahima Lamp njaay mii nga xam ne sëriñ bi moo ko boole ak ñoom ngir mu ànd ak ñoom dem ci sëriñ Basir moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Basir itam boolewaat ko ñoom ngir mu ñëw ci ñun ñu ànd xool liggéey bi li fi war lépp ñu mën leen ko won yàlla def it bi ñu leen ko wonee xaw naa yaatu lool xaw naa sakkan lool waaye ñoom itam ñu am yéene ju rëy rëy ci yokkaat la nekkoon seen Pastef nga xam ne loolu lañ xalaatoon ne war naa mën a def lañ ciy def war naa wax naa wax ne bi ñu leen wanee liggéey yokkaat nañ ca lu ko ëpp ngir seen pas-pas ak seen yéene ak seen bëgg li ñuy def ñu xamal nag bokki jullit yëpp di xamal bokki taalibe yëpp ne bis boobu ñu jàpp muy le 18 nga xam ne moom lañ bëgg a def opération bi euh, mboolem pentirkat yi daje fi wara a lañ liñ fi war a pentir lépp ci seenu tur ak ci sunu tur ñu ngi ci soññi bokki taal bi yëpp di ci soññi bokki jullit yëpp waaye nag di yëkkati kàddu yi cant ak ngërëm di ko jëme ci waa Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo am yéene ju rafet ci joxe lépp loo xam ne mooy peinture bi ak li nga xam ne mooy tax ñu mën koo peinture waaye di soññ waa Rawdu Rayaahiin niñ ko waxee léegi ak ñi ajo ci ñoom ñëpp di seen mbokk di seen i xarit yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ci turu Serigne Mahmoudan ngir lépp lu ñu am ci ay jumtukaay yoo xam ne mooy tax liggéey bi mën a jàppandi mën a gaaw buñ ko ñu bàyyi ko xel ngir indaale ko ci liggéey bi ñi ngi leen di xamal ne fii ci Muxaddamatul Xidma pare nañu pour dalal leen ci barab bi ànd ak yéen itam ci liggéey bi ci lépp loo xam ne yor nañ ko fi ci ay jumtukaay yoo xam ne xëy na danañ ko soxla incha allah fas yéene ànd ak ci liggéey bi di ñaan ñu daje teeg ngërëmul Serigne Touba di ñaanal société bii nga xam ne itam moo am xalaat bu rafet bi sun borom dooleel ko te yëkkati ko ci barkeb Serigne Touba waaye bokki daal bi yi nga xam ne itam ñoo ñëwoon keroog ñëwaat tey ngir seet soit liggéey bi ngir te tey seen yoon wi dara yëkkatiwu te lu may natt li nga xam ne moom lañ war a soxla ci liggéey boobu ngir man koo joxe waaye bokk yi nga xam ne itam ku xam na ne waxtu bi seen waxtu liggéey la xat nañ lool ñi leen soxla bari na lool yaat na lool li ñu engagé sax xëy na mënuñ koo matale waaye ñu nangoo bàyyi ay bés wala ay waxtu yoo xam ne dañ koy jagleel Serigne Touba yéen ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha turu Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir ak turu Muqaddamatul Xidma ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal yéen ji ngeen am ngeen daje ca ngërëmul Serigne Touba te sëriñ Ablaye wax na ko léegi euh, ngërëmul Serigne Touba moom mooy lépp. waaye ngërëmul Sëriñ Tuubaa nag ci jumaa ji doonul lu ñuy làmbatu lu ñu daj la nekkul lu ñuy làmbatu lu ñuy daj la Sëriñ Tuubaa dafa ñaanaloon képp koo xam ne liggéey na ci jumaa ji wax ne wax fir li man banaw binaaha rafia wax fir li man amarahum bihi jamia wa li jamia man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika tala loola fondation ba ne nañ yemul foofu rek waaye ba addunay tukki ba addunay tukki lépp lu ci waaye laal rek day dugale ci biir ñaan googu te ñaanuk Serigne Touba nag euh, tegginal la digganteem ak boromam waaye lu ko boromam may ba noppi mu door ko bind lay doon li ci gën a bari te kon nag rafet nañ jortuñu ne woo gi leen womat gi leen suñu borom womat ba ngeen ñëw ci barab bii dafa nekk ak yokkute gu nar a ci seen i mbir adduna ak alaxira yéen ñëpp kon nag nañu euh, li ma li ma dégg barki dem bu Seex Musaa moom Serigne Abdul Xaadir wax ko ci màggal seen Abdul Xaadir gi rek mooy nanu raxas ndab yi te taataan bagaan yi bagaan yi te bu kenn indi askook bu fi kenn indi waaye nañ fa indi bagaan ndax fii kat lu fay andi te raxas ko raxas bu set sunu borom sëñ Tuubaa dana la ko dugal ba fees del daana wax ne nag buñ ko sikk nañu sikk lawbe bi buñ ko gërëm it nañ gërëm lawbe bi moom yett ndab li moom ndab li moom nu mu mën a toll am na fulla ju toll ne nag du def ci ndab li moom du def ci ndab lu daq waaye ndab li nu mu mën a toll bu setee bu ñëwee mu duy ko kon nag nañu raxas ndab yi te yaatal ko baat yooyu nga xam ne nag sëriñ bi waxoon na ko léegi ñu ngi koy gën a feddali mooy ñii ñëw nañu tànn ñaari kaaf yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo kàllafe te qualifié ñaar yooyu moom ala kulli dañ koy baaxoo di ko wax ci ñëpp yoo xam ne ay liggéeykat la ñu fi ñëw niñ koy waxee ministre métalique yi di ko waxee euh, euh, électricien yi di ko waxe ministre bois yi di ko waxee tapissier yi di ko waxee plombier yi ak ñeneen ñi mel na ñoom ñëpp noonu lañ koy waxee itam peintre yi ndax barab bi euh, dafa ndaw dafa baaxoo lu ci bari fu mu nekk fa yendoo wala mu yàgg fa tuuti rek foofa te barab bi du barabu fawukaay du barabu kaay loolu moo tax ñuy wax ne dañuy indi nañ nekk ñu kàllafe bay xeet yooyu yëpp lara yooyu yëpp larax yooyu yëpp day su ci gis waaye nañ nekk ñu qualifié it ba lu ñu fi def kenn do ca jaaraat loola mooy li am solo jàpp naa ne nag génne juñ ci am rek yéene ji ci ñoom sëñ Mahmoudan ñi am ak waa Sénag yi moo ko ëpp kon nag yàlla na yàlla mottali yéene yëpp ci barkeb Serigne Touba te nii ñu fi taxawee tey jii di ko waajal sun borom suturaal nu defal ñu tawféex ba niñ ko bëggee nu amee ko fi ba dajawaat fii di sant ci barke Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xayril bariyaati min baadi wa muntasibi